Assalamualaikum mbooloo mi salaamaaleykum wadies man mangi tuddu tudd ndjay Ndiaye bokk euh, jeunesse Benno Bokk yakar di coordonner la jeunesse féminine APR euh, au niveau nord vraiment di contane euh, ci jotay bi tay te wax deug yalla liñu gis ni tay gis la jeunesse Benno Bokk yakar and tay ngir meuna gungé gunge ki nga xamné le coordinateur des jeunes de la ville bi nga xamné tay ji moy monsieur Cheikh Ndoye organiser ndogu pour mun ko yóbbul euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison bi tey ñu ànd def euh, mbooloo mi ngir mun koo gunge ci bis bi teewaayam nag waroon na fi waaye ku ne xam ne avec contexte yi ñoom ñu war a dem euh, Dakar wuy ji la président de la République ñun tamit ñu des fi en tant que ay ndaw Benno Bokk Yaakaar fas yéene teewal ko fépp fi nga xam ne fa la war a teg tàkkam tey tey nag loolu moo waral woote bi ñu daje fii togg ay ñam fas yéene koo jagleel waa prison bi ndax xam ne tey jii dëgg la um, nekk nañ ci moment boo xam ne moment koor la joxe ndogu def ci baax mais ñooñu waruñu leen a fàtte moom mu xalaat ne tey jii warul fàtte ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison bi te xam ne seen coobare bopp yóbbuwu leen fa nattu àdduna moo leen fa yóbbu mu war leen a mën a gunge jox leen ay ndogu ñu mën a bànneexu comme ñëpp ci bisu wooru koor gi looloo tax tey ñu ñëw fi waaye yemu ci moom kese tey ci bis bi daf ci ànd ak son frère euh, monsieur euh, Pape Malick Sow parrainé ko bis bi ne ko yaay sama sama frère tey ñu bokk APR depuis 2012 ñu ci liggéey kon tey ji war naa laa jël parrainage bi jox la ko nga mën maa gunge ci bis bi ànd ak la jeunesse réew mi nga xam ne ñoom la def invité d'honneur ci bis bi te loolu dafa rëy ci ñun ñoom ñu def une forte délégation ñëw wuyu si ñu loolu moo doon woote bi ñu fa yéenee gunge Cheikh Ndoye ci ci ay euh, euh, perspectives yam yi nga xam ne am na ko ci zone nord mais am na ko ci la euh, sur la région de Thiès pour son carrière politique di ñaan yàlla aussi jeunesse bi yëpp ñu gën a takku nekk lii rek moy moy ndam suñu àndee nek ben ken duñu mëna fakatal buñu and buñu tassaro rek fakatal ñu day yomb li rek moñu mëna jëmele ci kanam surtout élection législative yi ñu jiblu nga xamné ne le président Macky Sall bëggul lu dul Thiès am ndam té nam loolu ci jeunesse bi tay la ñëkke tay jeunesse bi ni ñu àndee ni nek une forte euh, mobilisation bu suba buñu andé ci législative yi mobiliser wul dinañ am ndam bi nga xamné ne la président di xaar dinañ am ndam bi nga xamné jeunesse Thiès Nord ak ñi ñoo Thiès Nord di leader Thiès Nord moom lañ bëgg merci beaucoup. tey dañu ñëw répondre présent ci invitation wu suñu frère Cheikh Ndoye mi nga xamante ni si élection locale yi ñu génn moom moo suñu coordinateur communal au niveau de la coalition Benno Bokk Yakar. donc muy œuvrer ci ay ay social yoo xamante yu am solo la en étant jeune. donc c'est un devoir pour ñun en tant que jeune de répondre présent ci invitation moom yu parce que tay bo xolé euh, ndogu bi tay mu def mu togg ay ñam def ay lekkam et tout ça ñu ni ko fan nga ko jëmee mu ni ci prison ba la ko donc du mën lu rafetlu amana tay am na xamanteni sax euh, ñi ngi ci biir dëkk bi bëgg lu melni amuñu ko kon donc tay bu amé initiative bi di fàttali ñi nga xamanteni ñom ñoom la caabi donc du mën ñun en tant que jeune di luddul diko rafetlu diko accompagner aussi ci lolu suma sœur bi génn fi légui dafa wax lu am solo moy que ni la coalition Benno bok yakar ici à Thiès gars yi dañuy wax rek mais la force est là la force est là la jeunesse est là on est on est unis on est un bloc donc euh, ci fi jëm muy ci élection législative yi nga xamante mom moom lañ jëm muy la coalition bi nek Benno bok yakar dañu bëgg jël ndam li tek ko ci loxo président Macky Sall comme ni nga xamante mom moom yéenewuñu dara lu dul ndam fii ci Thiès donc ñu wone ko la jeunesse est là est toujours soudé donc prêt aussi pour relever le défi ci élection yi ñu jëm incha allah. maa ngi des di nuyu ñëpp di leen ziara di baalu ñëpp àq si koor gi euh, di responsable jeune parti réew présidente centre de vote Mame Cheikh Ibrahima Fall à Medina Fall euh, di ñëw aussi bésu Cheikh bi vraiment mu nekk suñu frère nekk suñu coordinateur euh, au niveau de la ville. muy def lu mel nii comme ni ko sama frère euh, Iba Dieye waxee noonu laa ciy ñëwaatee rek di ko rafetlu di ñëpp ko war a rafetlu ku ko romb dégg ko sax war nga see dem ndax prison ba yaakaar naa ni jombul kenn si ñun nii ndax kenn ku si nekk boo fa amul koo xam am nga fa mbokk wala koo xam te am na ñu fa nekk ñoo xamante nii amuñu kenn ku leen fa fekk kon lii dañ koy rafetlu vraiment si weeru koor bi mu togg ay ñam di leen ko yóbbul ñun mënuñu lu dul ñëw jàppale ko si mu nekk nag baax ku ku loyal ku yaatu ku bëgg ñëpp ku yaatal ku respecter suñu coalition bi vraiment amul dara lo xamantene koalisi coalition bi au niveau de euh, réew mi surtout réew mi da nga naan Cheikh ndoy si réew mi la bok ndax tellement que ni mu sawaré si suñu mbir si suñu lepp deful dara baye ñu surtout nak li mu def ñu rafetlu ko mu jël ko euh ñu ko ñun wa zone nord ñun lool duñu def lu rafetlu ko

ñun benn lañu benn xol lañu benn buum lañu lu dagg rek moroom ma lay fekki loolu moo tax euh, sama teewaay fii di rafetlu lépp vraiment di leen remercier di ñaan yàlla nag euh, élection yi nu jëm législative yi yàlla defal ñu si ndam bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ñu jël ko teg ko suñu président Macky Sall ak suñu président Idrissa Seck merci beaucoup. di leen sant di leen gërëm yéen presse bi yëpp di rafetlu li nga xamante ne bii am na te suñu euh, suñuy rakk def ko muy Cheikh Ndoye bi nga xam moo ko initié comme léegi. bisu weeru koor bi ñek ni ku ci xalaat yi nga xamanteni ne bi caabi da leen a féete ginnaaw mu jël ko tuddee prénel ko pa Malick Sow muy sunu jarbar bu baax ak euh, ñi nga xamanteni moy jeunesse réew bi nga xamanteni bi ñom ñoy invité d'honneur yi mu nek lo xamanteni bi lu am am solo la manam mu nek coalition benn bokk yaakaar mi ngi jël forme bu baax Thiès parce que li xalé yi def ni bu gëné yatu yaakaar naa ne li Thiès buñ xolanté si bët mën a ànd rek li ñu bëgg dinañ ko am quoi mu nekk loo xamante ne rafet na ñu wax ni daal yàlla na nekk ay yooni yooni yoon wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin jërë ngeen jëf